mën nga paree pare nga ci waaye nit ku nekk boo jëfee li nga toll rek ngay waaye bu lay fay ni toll la lay fay kon yëg ma leen def moom ñoom ñu defete bor bi tuuti na loolu waaye fay bi moom moo gën a riche waaw dafa lu a leen tax tey mu defal nañ dafa lu ma leen tax ñu déplacé aussi ñu yàlla baax na am na loo xamante ni du ma ko fàtte mukk mukk mukk Passe caméra. moo xam na lu ma wax. loolu kooku kan la. Euh, ñoom papa yoo xam ne boo ko déglu loolu la. waaw wax na daal grand boubou la daan sol. grand boubou la daan sol ñoom. bu ñu fekkee daanaka te boole ci boole boole ba ñëw dañuy burux boobu fees. wóorul bu ñu demee day ànd ak café daw. dëgg la bi ay de bu demee ne dóor ba pare. dëgg la ñu ñëwaat nag. non mais kii kii dafa wax loolu rek dafa wax loolu ko moom xar mi nag nga buum bi. fekk nag fii liñ fi ñëw ay cant def buusu beneen mu juróom mbaa mbaa booli beneen. mbaa fecc bi daal moom ngeen koy daaneel. daanaan mais boy yi ñii demee ñii rek di dem mais bon lépp contentement nag moom day suñu frère ba pare di nekk nit ku am respect ci doomu aadama moo tax ndamam lii boo seetloo àdduna ñëpp a mën a donc ñu koy ñaanal yàlla yàlla bu nekk dem ñaanal yàlla ko jik yéen ndax yeneen ndax yeneen ndax saa nit ku baax la te mérité na boo seetloo fii léegi yaa yàlla defal jàmm yàlla defal na ñu ko yëg xam nga bokk ndey bàyyi bokk soxla bokk sama waroon ñu bàyyi tey rafetlu bu baax baax a baax sa teewaay ndax wax dëgg yàlla dañ ni doo lay jël ndox daal kenn ku nekk mi ngi taxaw di mais tey nag dañ dem tëkk géew bi. ñu jëfandikoo géew bi ba pare. Ah, ah, Bombardier wax na léegi léegi. mais ah, Bombardier nag li mu wax jaaxal na ma de. mu wax. ah léegi Bombardier. non Bombardier da ngaa génn wax wax loo xamante ni. mais mais Beuz. dafa euh, waxuma Tapha Tine de mais Bombardier li mu wax. am naa sos de waaye ñoo ñoo fekk ci kaw ñoo ko sos te ñoo moom sos man loolu laa leen ñu nangul la daal. dama ne am na asas am na fi meetaan waaye ñoom ñoo problème ñëpp. ah. loolu laa ci wax. waaw loolu moom wax nga foofu nga ci yem sax day doy sax kon gars yi dégg ngeen li Salif wax. xam nga li ma la baax.